affaire de football yooyu laa gën a. nga gën a barre quoi. oui yaa ma gën a sa joueur. bon man Sadio Mané. Sadio Mané waaw Sadio Mané. Sadio Mané nice quoi. kontaan ci yow. Sadio man ci mu leen di gisee rek damay damay happy. barki Rasuul kooku nee na ma. Ah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla euh, xalaat ni moom la war a bëree. ko jox kii rek euh, nu mu tuddee sax dañ ko joxaat Modou. jox ko Modou non teel na parce que ci un an ñoom ñaar mën ñu ci bëre deux combats adversaire yaa Bombardier mi ngi fi mi ngi fi Boy mi ngi fi Tapha Tine mi ngi ko jox Tapha Tine ndax Tapha moom gëj na am bëre quoi. dégg naa loolu. tu es de quelle nationalité. béninoise. Mm. depuis quand vous êtes au Sénégal. depuis huit. huit mois. depuis huit mois et vous parlez pas wolof. ça pas gentil de ta D'accord, c'est bon. Mais il faut apprendre à parler Wolof. Ok. Tu suis la lutte sénégalaise Oui. Tu connais un lutteur Non. le connais pas <laughs> Alaaji Dia Alaaji Ndiaye Alaaji Dia moom lañ àndaloon Touba di ko siyaare bu baax a baax maa ngi lay bëggee sama rax ji de la kontaanee mais El Hadj Ndiaye mooy suma doomu nday borom Dia Chéri Sofi Sarr maa ngi koy bëggee borom Marseille doomu ndeyu Moustapha Diop la ministre ñu ngi lay siyaare bu baax a baax suma xarit la rax la ci Abdou Salam Sarr mu baax mi nga xamante ni nii wax dëgg yàlla mi ngi ñoojoor di fa def lu baax di aar ndaw ñi te di leen ñaanal fa ci yàlla sunu borom kon mbokk yi Bantamba noonu la tàmbalee di leen siyaare bu baax a baax di leen bëggee di am mbégte ak di jàkkaarloowaat ak yéen mbokk yi ci Bantamba li tax am mbégte ak kontante di jàkkaarloo ak yéen ci Bantamba Bantamba semaine bii ñu jógee daanaka dañ leen indiloon rek benn fàttaliku ndax màggal gi moo ko waraloon ñu ngi woon ci wàccaay gi fi mu toll nag Bantamba tàmbali na liggéey bi tàmbaliwaat na ndax saison bi mi ngi tijji te combat mi ngi tàmbalee taxaw xam ngeen ni Diamond Event taxawal na combat bi dox ci diggante Jet Li ak ki nga xamante mooy Jamteeri si Papa Sow ñu ne taxaw na kon combat yi ci des war a taxaw bari nañu loolu la ñuy waxtaanee tey amateurs yi joxe ci seen xalaat ci biir Bantamba mbokk yi xam ngeen ni Baye Mandione ak Gris Bordeaux amoon na fu ñu jaaroon te seen kombaa dafa neexoon lool am ambiance bari xumbu xumbu dinañ leen ko indil mbokk yi dinaa leen indil cosaan ci loolu sax laay tàmbalee léegi nii damay ànd ak yéen dem Foundiougne ànd ak Karajo Karajo yóbbu ma fu ñu ñu xool cosaan après ñu ñëw. te ba nga xam ne li ma la wax li ma li ma tax ma wax la dëkk dëkk cosaan la dëkk boo xam ne temps buur ya buur bu musoon na faloo da nga ñëw ba fii ñu gane la am na benn géej bu nekk fii dañ la yóbbu ci géej ga sangu la fa buñ la xam aussitôt li nga andiwaale li nga war a andiwaale li nga war du dundee cosaan bi loolu lañ doon def moo tax ma ne la dëkk bi dëkk cosaan la gis nga ndënd ba nga gis ndënd bu mag bale mooy moom la ñuy wax undulub ci séeréer undulub moo ko déggee boo ko déggee mooy loo xam ne mooy li ma wax tam tam téléphonique undulub day am jamaane boo xam ne buñ ko tegee ci tegin bi bu dee ku reer ci dëkk bi la bu dee ku dee la am na benn tegin boo xam ne buñ ko fa teginee foo toll mën a xam ne galañ ba ñu teg lii moo xew am na ku am na ko dee ci géej gi am na ko lebb am na ko dugg fale mais buñ ko tuddee rek buñ ko tegee rek ci façon ko teginam rek nga xam ne euh, lee moo xew foo ak foo mënta tollu mooy garab bale gis nga garab gis nga euh, banta bale ngay gis ak banta bi ngay gis ci digg penc bi borom euh, bu njëkk xam nga nit ñi doon daw armée temps tubaab bi boo doon dugg armée dañuy mobiliser wu ñun dëkk bi yëpp dañuy mobiliser ñëw ba fii ñu toogal ci ci boobu ci banta boobu di la wor di woy di la wor woy boo demee ba France ak fa mu dem danga nga dellu siwaat ba toog ci banta boobu mooy banta boobu garab gi may suub suub nag bem pi ma lay wax ni bu dëkk bi reewoon ba gisatuñ ko ñu war ci àll bi ba gis ko am na mandarga boo xam ne buñ ko fa gisee rek ñu xam ne fii la dëkk bi fa la woon mu nekk foofu ba reer mag ñi dokk ci biir dëkk bi di àll bi di wor di wor di wor ba gis ko biñ ko gisee ñu xam ne fii la ak fii léegi te bu nawet jotee bu ñuy dem ci àll bi jiwi dañu ñëw def li ñuy def suñu cosaan buñ ko defee yàlla dañu may sutura ñu am suñu warsak bu nawet génnee ñu ñëwaat fii nii mu dëkk bi safara du ci génn lu bon la ci génne mooy dëkk bi mooy suub suub lañ koy wax ci séeréer noo ko gisee. lamb euh, diggante Gris ak. lamb en général. waa lamb ça va ça loolu nit ñi apprécier la nit ñi ñëpp a ci kontaan. bëgg nga ko yow. waaw bëgg naa lamb nag sa mbër. bon man nag euh, Modou mooy sa mbër. mooy sa mbër ah, roi ah, mooy sa mbër félicitations. Ah. waaw maa ngi lamb noo ko gisee. waaw lamb ji de moom macha allah moom mais dóor mu daan yooyu du yenn dóor mu mënuñ koo kii xanaa. ñu wàññi ko ci mbër mu dee de. Uh-huh. waaw loolu moom lu nga foog quoi. moo am dañ ci dóor mbër mu dee dóoruñ ci woon mu dee sax. ah tàgguñ fi see fii mbër musu fee dee xamal lan la. laaj ji koy xoolal bu ñuy yab. ah Modou kat laaj aayul <laughs> ah yow tamit. bu nu laaj. kuy sa mbër kan man. Eh, kii nu ñu koy wax de am naa mbër yaaw jaal mooy sama mbër. bàkk sëñ Tuubaa ah. waaw. kontaan ci yow. barki sëñ Bamba. aawoo ngi noonu woneeti na boppam de ko nee na rek nen bi ci suuf lan koy sànni mu jël nen bi sànni waa ji kenn musul gi eh yaawu moom xanaa nen desul ci marché bi ah kon yaawu ginnaaw bu tojee nenu waa ji toj nenam léegi mi ngi léewtoo ak El Hadj Amadou Diawara yaawoo ngi waaye li ma ci jaaxal am El Hadj Amadou <laughs> yaawu Leewtoo bi El Hadj Amadou mi ngi moom Leewtoo wu na ah, day yeeru yaawu xool ko mi ngi koy dóor na mais boobu dalul dem na ba koy jël yaaw yaawu ah El Hadj Amadou jël na yaawu waaye yaawu bañ na yaawu jàpp na ca ngemb la sopp galas eh eh ah yaawu daanu na waay El Hadj Amadou Diawara moo ko daan sopp galas yaaw nee na ko bu ma nuyu El Hadj Amadou temps yi dafa mel ni na jàpp waa ji de ah loolu liggéey rek dañu lay fay quoi mais noo gisee combat bi xanaa da nga ko préparé waaw préparé naa ko loolu rek wax ma rek da nga def jàpp si rek yaa ngi cool maa yow ñoo nduróo tiset bu weex ñoo nduróo yére giri fo de waaw ñaay de waaw gis nga même secteur la kii waaguñu ànd dëkk man man ma dëkk garaan naka baal ba ma indi la ba pare nga soog ma wax maîtriser woo ko yaa ngi seetaan làmb waaw maa ngi sa mbër Balla Gaye loo wax tey jii boo boo ma doon proposé yenn ci ay adversaire am kan lay doon Balla Gaye bon asaan ni Balla moom man daal asaan ni Boy Niang laa gën a gis quoi Balla Boy Niang gis naa ko trop waaw Balla Eumeu Sène tamit mooy Eumeu Sène nangu moom mm-hmm. mooy loolu quoi mm-hmm. waaw loolu nga gis mais noo ko naka làmb noo ko gisee. a ah, làmb moom ta asaay ni moom mu ne ne nu mu meloon bu njëkk ak léegi moom am na différence. waaw parce que boo xoolee lamb daal doon na gën a dund. Mhm. auparavant que mhm. qu'aujourd'hui quoi. Ah. waaw mais nag je pense que manque de sponsor bi tamit joué na ci lu bëri. waaw loolu gënoon na si influence mais léegi moom boo xoolee sponsor yi si nekk xaw na néew quoi daf mooy loolu quoi. kon daan mais yàlla baax na. maa ngi lay bëggee. waaw delloo ñoo bokk secteur suñu secteur amul ragal. noonu la demee. ça va papa. ça va bien merci. grande sant yaa eh, dafal naa nga da yow noo sant. non Modou la wax. waaw noo <laughs> <laughs> say gars yi jàppee bu la. papa noo sant. <laughs> ah papa. non non baal ma bu nekkoon amuloon kii maa ngi soog a yegg si moo tax. ah dëkk bu amuloon. naka mu. nice cool. yaa ngi seetaan làmb. làmb waaw ma koy seetaan ma koy seetaan waaw. noo ko gisee. làmbam naa gis gars yi di wax comme ñi si nekk amateurs yi ak ñi koy organisé maa gis ñu naan làmb dafa sooxe des fois aussi naa dégg ñu wax li ko waral mais dama yaakaar ne aussi CNG CNG aussi war na mën aussi di combler amateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo fi gën a di fa nekk quoi chaque fois chaque fois parce que du ñàkk. nit moom buy dem ci benn bërëb au fil temps dafay dem ba xam ne ne ñii ñooy borom bërëb bi. Mm-hmm. di fa yàgg di fa di paas seen ticket. Mm-hmm. dem ci biir ñu xam ne ñii dinañ ràññee ñooñu wala leen mën chaque fois laaj seen opinion. làmb donte nag yéen ngi def ay émissions yu baax di invité ay kàngam ma gis des fois ngeen wax aussi ci ay plateau yu am solo mais am solo bu aussi pour man war nañ mën a aussi di jël ci ñi xamante ne ñooy jël seen xaay seen temps di toog te yéen ñi di ko dund. très bien. te yéen ñi di yor télé yi yéen ñi di yor micro xam xam nañ nga leen pourquoi pas ñooñu du leen dugal ci biir affaire yi parce que ñooñu am ne war nañ mën que li ñuy wax ne Sénégal di koy jëmal kanam il faut ñu def benn booloo benn groupe comme ay ñi ngay dëkk yi ay ñi di avancé ci yeneen dëkk yi boo gisee mu avancé parce que dañuy booloo. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla. naka affaire yi. sant yàlla bu baax yaa ngi seetaan làmb. waaw gëj naa ko seetaan nag lu tax sama mbër daanaka léegi mooy loolu quoi. sa mbër. man écurie Fass laa bokk. seen écurie bi dox. waaw moo tax. lu tax. ah am na rek mooy loolu. pour man dañoo ñàkk déggoo quoi. waaw. ok. ñàkk déggoo daa am ci écurie bi quoi. Uh-huh. te ñun Fass lañ dëkk. dañoo bëgg a dañoo war a xoolaat toogaay quoi defaraat. bu baax. moo daal de ñun seetaantuñu làmb. Ah. waaw. kontaan ci yow grand bëggee naa la bu baax tur bi nan la. Alioune Badara. seen naa Alioune. waaw naka waar. sawa naa kuy sa mbër yow. xarañ ñoom. Modou xarañ. yow ban adversaire nga ko gisal ah, instant bi. instant lu mu am jël lu mu am rek jël. Ah. waaw ndax mooy roi. waaw du taamu dara lu mu am jël. fi mu toogee baax na. fi mu toogee baax na bu ñu ko jox rek bëgg na. <laughs> salaamaaleykum fa may place grand Ousmane Niang. Ousmane Diagne waaw ah daa dañ ko daax lu tax ñu daax ko ah li ko war defu waay Ramatulaay waay siyaare grande bëgg nañ leen salaamaaleykum naka waar naka mu waaw waaw waaw El Hadj Mbaye ñu lay siyaar bu baax. naka waare. waay sant alhamdulilah. looy joom ni. saa yi damay réparé iPhone laay réparé nii rek. iPhone. waaw waaw dañ koy réparé fii. fii Alizé am na lépp. la ilaha illallah am na lépp baay. ah. Alizé moom iPhone lii bi lan moo ci paan nii. yi batterie laa war a changé. ok batterie mhm, bi laa war a changé. dafa gondale quoi. ah. moom loo bëgg moom gars yi. am na fi lépp. sinon naka moom.

yàlla naa mel ni yow su ma màggee. macha allah yal wala vocal ngay déglu. vocal waaw. tout ce mot. kon Balla Gaye. mais Modou Lo man Balla Gaye rek. moo fi nekk adversaire nga ko gisal. instant jox Modou rek. ñu delloo buum ca boy boy ba. non ñu ko ñu delloo buum ca boy boy. allo. ma ne trois bi leen soxlawaat. na de yéen daaw rek ngeen bëri. non moom. janvier ngeen bëri dañ ko kaa aaloon rek. Modou Lo ah. eh, fii place waa Big Town la. fii place waa Grand Dakar la. xaar damay jaay tey fii laay sax. tey joob si naa salaamaaleykum sëñ bi noo def. grand maa lay siyaare. dara siyaar nii rek waar. sant yàlla alhamdulilah liggéey bi. tranquillement ñu ngi ci kawam. Uh-huh. naka marché bi. ah ñu ngi tranquille sant yàlla rek. Uh-huh. naka lamb yaa suivre. waaw ah, lamb dinaa suivre mais nag grand combat yi rek laay faral di suivre waaw. Uh-huh. mais waaw. tey yi nga xalaat ni moom moo war a taxaw loo ci gis. par exemple lamb yi ñu war a boole quoi. waaw combat yi war a taxaw. waaw man daal bëggaat naa Eumeu Sène Balla Gaye moom soxla naa ko trop lamb jooju. waaw bëgg naa ñu fekkaat ko quoi. mais na ni moom du bëreeg Balla. Ah, ah mais loolu lay wax la rek gars yi dafa gars yi fay ñu ko xaalis bu ko jar mu bëri moom de. à boobu boo gisaat. bon à part boobu bon Ama Baldé bon mën nañu ko boole euh, Tapha Tine ñoom ñaar mën nañu bëriwaat. Mhm. waaw man dama way combat xam ne bëgg mu ñëwaat daal combat yu neex. Ama indil nañ ko Ama su Tapha Tine mu delloo ko. ah da ko delloo. ah ok ah mais ça dépend mais daal lamb daal bëri nañ man daal man affiche mag yi man ñooy sama combat yooyu laay. kontaan ci yow. ah loolu la quoi. suñu fierté la big town la dëkk ñoo far naka waar. ana paa bi. mi ngi fi. waaw mi ngi waaw. naka sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah lamb ko gisee. Euh, combat Ama Baldé bi. waaw Ama de moom fi mu nekk nii moom am nañ ci moom yaakaar bu baax. Eh, ah, mais Ama delloo war na delloo ko war a jël de. da ko war a jël ndax fi mu nekk nii dafa war a confirmer wane boppam bu baax a baax. waaw ndax waa Pikine fi mu nekk nii euh, défaite bi ñu am ci Eumeu Sène maanaam Ama Baldé moo war a ñëw maanaam effacé ko ba mu jeex tàkk. waaw ñun daal am na ci moom yaakaar fi mu nekk nii daal ba war na delloo avance daal delloo avance war ko daal. fii laa koy tëjee fii nii nii laa koy tëjee dafa am benn gànnaaw bu may xaar boo xam moo doon yóbbu Papa Sow làmb Ousmane jaañ lañ koy wax moom laay ceenaas quoi su ma ko gisee rek mu wax ma waa fee mooy place am mais nee na mi ngi ñëw xam nga man giseen ni laay joobee de dinañu woote allo grand foo ne kaa ñu jël la <laughs> demee Boucha. sama xarit la moo géré woon Touba lumière yi kontaan naa si moom la xa le temps am na fii ku xam lamb fii na def. maa ngi fi. Messi laa tudd Messi Apple. Messi Apple. Ah. naka waar. waaye sant yàlla bu baax. Messi naka lamb noo ko gisee. yii lamb lamb lamb lamb lamb kay mi ngi nii rek. Ah. naka lamb ngi nii rek. mi ngi dox comme comme y'a quatre ans ci ginnaaw wala y'a. doxatul quoi parce que sponsor yi ñoo xaw a daw daw lamb ji quoi. Mm-hmm. Ah. ñoo xaw a dawal waaw. pour yow lan la ñu war a mën a def ñun ba sponsor yi dellusiwaat. waaw mais discipline ah, sponsor yi ñëwaat xam nga léegi sponsor yi visibilité lañ dem wut léegi xam nga ñoom seen promotion la ñuy la ñuy dawal quoi. moo tax it xam nga léegi lamb changé quoi. est-ce que indiscipline moo tax sponsor yi daw. si loolu moo tax xeex beeg xam nga xuloo beeg yooyu moo tax nit ñi daw lamb quoi ak violence bi loolu moo tax gars daw lamb koi waaw. tey jii combinaison yi nga xalaat ni war naa am combat yi nga gis ne war nañoo taxaw. surtout Modou Lo Ama Baldé point boobu rek. am na mais ñun Ama la ñu am mooy suñu mbër. ok Boy Niang koo ma jox ko Balla Gaye 2. waaw. Tapha moom non man mbëru Pikine rek ñoom ñoo. Eumeu Sène koo koy jox. ma joxaat ko Bombardier. Bombardier bu may ko waaw loolu làmb la. Ah, Messi Messi kontaan naa ci. Messi épaule ngay la. Messi épaule. la kii moo doon indi Papa Sow làmb kii dafa bokk ci làmb dafa bokk ci li jaay làmb ba làmb yegg si fii maa lay siyaare. delloo siyaar Modou Mbaye. na sant yàlla. ngi am taw sant yàlla bu baax. na gi. waaw sant nañ bu wér. sant nañ bu wér fekk janatul maxwa waaw ñun moom ñu ngi woon ci ginnaaw sëriñ Saliou Thioune. ñun ñëpp waaw waaw borom ndigal li borom kaala gi. ci barke Serigne Saliou Serigne Saliou ñu ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi bu yàgg yàgg yàgg yàgg te taxaw ñu bëgg nañ ci moom waaw. làmb lay waxtaanee tey xam naa yaay sama dernier intervenant mais dañuy waxtaan ci làmb doxin doxalin bi est-ce que làmb mi ngi dox comme yaakaar naa ci ginnaaw. non doxul doxatul làmb doxatul. làmb doxatul gaa yi dañuy tatoné ndax doxatul non parce que ñi ngi naan sponsor yi ñi ngi naan sponsor yi mais man man du sponsor yi sponsor yi li ñu waroon gis muy làmb bu neex gisatuñ ko xaritoo bi dafa bari xaritoo bi dafa bari dafa bari nañu waxante dëgg xaritoo bi dafa bari man mënuma gëm ñaari nit yu bëre kenn daan ñu ne noonu dañuy xaritoo dama def ni Balla Gaye Modou Lo que daanu ko du ma xaritoog moom Balla Gaye Modou Lo foofu la toll ci Balla Gaye tant que daanul Balla ñoom ñaar duñ xaritoo app na ko ba déwén loolu laa gëm mais xaritoo bi dafa bari 100 pour cent yi dafa bari te amul njariñ zos bëri naag Papa Sow mais Garga dafa war daan Papa Sow pourquoi pas dafa war a bëri Papa Sow Garga Mbossé Papa Sow du ñoo war a bëri ñooy mente xaalis Papa Sow toll na ci làmb foo xamante ni instant bi soxla na xaalis soxlootul victoire de li mu a am ci victoire am na ko ba pare. est que bokkul ci ñu ëpp victoire sax ci la. non la bokk moom ak Kayre mais tey jii moom bëriwul ak Garga Mbossé bëriwul ak Yékini Junior lan la koy jëriñ lan la koy apporter ànd ak ñoom lan la koy jëriñ. moo Yékini Junior moom léegi ay xaritu. benn ay xarit lañ mës a doon mais Yékini Junior bëri na ak Malick Mbaye super jamono dóor ko mu daanu boobu fa la nekkoon mi ngi woon Grand Médine pourquoi pas seen loolu nañ ko arrêté seen loolu amul njariñ amul njariñ man maa ko wax. waaw amul lu loolu combinaison yi nga gis ni bu taxawee làmb dox lan la ban ak ban nga. par rapport comme. combat yi war a taxaw yi nga gis ni buñ taxawee làmb dina am Balla Gaye mi ngi fi Modou mi ngi fi Eumeu Sène ngi fi Bombardier Tapha Tine Ama Boy ñaa bari nañu Reug Reug Sa boo yëpp a ngi fi. loo gis mais lamb lamb yu neex jeex na man pour man lamb yooyu neexul lamb yooyu neexul Eumeu Sène Gris Bordeaux seeraan nga ko mhm. Balla Diouf Bac nga ko. Mhm. saison 2006 boobu noonu lamb yi dàqee noonu amatul. du amati du amati ngeen def ci taxawaay bu rëy yaag sa papa. amatul sa papa tamit dafa xaw a reculer ci lamb te moom dafa bokk ci lamb sa papa na ñëwaat. reculam dafa am lu mu wàññi. waaw dafa am lu mu lu baree bari wa maanaam da moom duñ ko war di gis. Bécaye Mbaye moom dafa bokk ci plateau lamb buñ ko buñ ko coincé fenn bu mu nangu loolu moom tamit lu rey lamb ci la bokk moom Bécaye Mbaye am na ci part responsabilité. waaw yaa ngi jël relève nag yow yaa ngi ñëw yow yaa ngi ñëw yaa ngi def sa wàccuwaay mais des na. mun yokk ñuy tëb tëb rek yegg. waaw d'accord mais yaa ngi ci yoon bi tool yoon bi sa bàyyi jaaroon yaa nga fa. yaa bu baax a baax a baax a baax. maa ngi sa papa buñ ko tënk. dafa war di wax chaque jour. parce que waxam am na njëriñ ci làmb barki yonent yàlla Muhammad waxam am na lu muy jëriñ ci làmb. sponsor dañ koy suivre bu baax a baax a baax plateau dañ koy suivre. sponsor bu bu mu nekk sponsor dañ fa ñëw te gis nga li ma la wax. kontaan ci yow. bëgg naa yow. fii lañu leen di tàggoowee ci Bantamba di leen bëggee bu baax baax waxoon naa leen ko jox nañ leen rog mbalax bi mu demee seeti grand sëriñ jom nañu funjuñ seeti drapeau korom ak fay bi nga xamante moo fa amoon nekkoon cosaan grand. non sa t bi lay laaj. lu lu muy inside mooy dedans you are inside Bantamba yaa ngi biir ci biir Bantamba. li ma wax li ma wax nag. bu ko kenn gisee neneen muy Papa Sow muy Modou Lo luy defar rek nga waaw luy defar rek laa wax. luy yokku laa luy defar laa wax. waaw maa leen gërëm ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla defal jàmm. kontaanee nañ la bu baax a baax mbokk yéen tamit kontaanee nañ leen di leen wax ni li ma leen mujjee li ma leen di mujjee jox mooy li nga xamante ni nii moom moo amoon waaw mais kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay balaa maa tëj kaay parce que i faut nga wax yawit it maa ngi ñu ngi doon ziar sama xarit. naka sant borom Tuubaa. xam naa man xam naa mais gars yi xamuñu kuy sa moo xam nga yow. waaw mais gars yi xamuñu man maay Papa Balla Gaye. noo gisee làmb. làmb waaw. fan yii nag xaw na mel lu wàññeeku sama tuuti quoi sama xaw ma nag kese yaa quoi. non mbëree war a xaw rek wàññi bagage yi tuuti xam ne prix bi xam ne léegi dëkk bee demee noonu daal. ñu xam dëkk bi bu doxut ñoom it dañuy wàññi prix yi pour làmb mën a soxali ko tuuti daal. kontaanee naa la. koy jox Balla. wala ku mu ko jox baal. Gris Bordeaux bi li fi amoon ci cosaan nekkoon drapeau du Ndiaye Coumba suñu maam mu bari woon cosaan bari woon art culture bari woon ci yéen la ak rajo ak moom si biir Bantamba kontaanee naa leen c'est le Bantamba c'est le Bantamba mais balaa maa dem di siyaare bu baax a baax. Sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool Sëriñ Cheikh Jëmm Fall yàlla na fi yàgg loolu te wér waaye tamit Sëriñ Saliou Thioune Gueule Tapée Thioune yow da da ngaa doonu kaala gi li tax nga doonu kaala gi ndigal la rek suñu sëriñ bu baax bi Cheikh Béthio am lu fi bàyyi li mu fi bàyyi du leneen lu dul njabootam ñu war koo topp topp ci ginnaawam te kim fi bàyyi moo yow cuun nga doy ñu nag doy képp koo xamante ne nii cantaakoon la ñu lay siyaare bu baax baax di la bégee di la ñaanal yàlla suñu borom bàyyi la fi nga yàgg fi lool ci barkib Serigne Saliou fi sa bàyyi tegoon màggal gi fooxe nga ko Serigne Touba li mu wax da nga koo firndeel ndax dafa ne woon sama tay ju ne dana gàcceel sama démb li am janatu max waa mosu fa am li ñu fa gis baas ba na mu mel écran géant cuun yow rek yaa mën loolu ñi lay siyaare bu baax a baax di la kontaane di siyaar njaboot gépp di leen bu baax a baax noonu la demee ci biir Bantamba c'est le Bantamba c'est le moo fi nekk Karajo foole nañ la. am mbégte loolu di teew fii tey di sama papa du Ndiak Mbarose ndaxte ba ma nekkee xale di bëri Amath Dieng di ma tëggal combat may bëri ay ñoom Zallo. ci la ma commencé jàppale àdduna dara taw ko yàlla may ñu daan giri jël bu set wi ci kàttu Seydina Muhammad ñun gëm nañ suñu mbër xam nañ suñu mbër aussi combat bi yàlla xam na ni ndam rek la ñuy jëli quoi ndam rek incha allah rabbi qualité yi ñu gis actuellement ça nous jox nañ ñu confiance ñun ñëpp ñu ngi mel ni fi mu toll nii dañuy feete suñu victoire parce que nga am mbër muy génn mu daw firiwu yenuwul combat bi yenuwul bis bi nga gis ko nice nga xool affaire yi wax dëgg yàlla amul ci benn pression ndax Baye Mandione yaru na baax na xolam bii dara nekku ci maam war a Ndiaye Samb mi ci maa mbaaw maa jooju dëggan faal ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam. aar lii la mais mais Bécaye lii mooy lii mooy tradition. lii mooy tradition lii mooy tradition Bécaye. Bécaye. Baye Mandione joojo dëggan faal yaa ñu ko tamal. bere ñi bey mantulaay yey sa yaay champion nga bilaay atureer naay atureer naay kuy donnu ma samba jeewa kuy ee boy soti baak i ko yàlla may ndam. amiin ma xiir ci écurie donc euh, ñuy indi suñu appui moral psychologique ak euh, lu ñu yàlla mën a jox ci doole rek bu fekkee at mën nañ ko ñu def ko amul benn problème. vraiment préparé nañ ko comme que niñ ko comme daa préparé. supporters yaa ngi ci koñ bi mobilisation bi vraiment bu dëgër na fi mu nekk nii ñu ngi xaar rek euh, waxtu wu jot après ñu dem sëñu mbër nag pour wax si moom ba yomb na def nañu li ñu war a def yëpp côté yëpp ah ñu ngi ñaan ka ci yàlla mu may ñu ndab ci ko du bàyyi ma njoon defal nañ ko daal li ñu ko war a defal yëpp nit ñi ñaan nañ penc mi ñaan nañ képp koo xam ne kii war nga ñaan rek ñaan nga donc euh, li ci des daal mooy gën ko ñaax rek ne ko daal bés bi bésam la euh, bés bu ñu bés bu ñu warul ñàkk la bés bi moom dañ ko war a gagné moom. il ne se connaît tant qu'il n'a ndam rek ndam kese Gris Bordeaux mooy bomb la définition de l'homme va au-delà sa mort Bordeaux pour toujours. Thank you. ba combat bi commencé dinga xam lan la. non dóor mu daanu. ah. baa ma lu ñu moroomam.

allah bàyyi ma jënd maa xaasaale lu ma kooku nag. jàngoo leen arab xoola à suivre. waaw bi nga daw jërëjëf jafe amul amul Mahaza. Gris Bordeaux la mais dafa jeex ñu jël Baye Mandione dafay sës. gis nga yaa ko Gris Bordeaux yee jeex. Fatou Gris Bordeaux jeex na tàkk ñu jël Baye Mandione dafay sës. nga supporté wala Baye Mandione. si xaalaatuma ko supporté ñu si Gris Bordeaux yàlla ko yàlla may ndam. Gris rek affaire dafa jeex jël Baye Mandione mais xam nga ne Ay, Ipo! Ay, Ipo! Ay, diplôme bi ñu ci daje bi. diplôme bi ñu ci daje bi. daje bi diplôme bi ci daje bi. jël bi. Alaaji Ndiaye bu tey jëlee micro central euh, sañsal ko sañse yu mel nii grâce à Aj Bekaay Mbaye la. su ma lekkee ba pare ci lay mën a wax ci sañse bi. su ma lekkee ba pare ci lay mën a wax ci sañse bi. jàpp daan bàyyi ma ñëw na nga ku ku dul ak moom yaakaar naa ni wax ji ay car rapide sécurité bu mat sëkkit am na ci stade ndeysaan xoolal les grands moyens eh, Seydou ñu noonu waa Gris Bordeaux ñu noonu sotti na la ko soow mi laay laay la laa Gris Bordeaux ñu noonu mi ngi jël ci ñeenti xibla yi fois Mitterrand Mitterrand toog ba mu neex ko mu ne lii daal moom nañ ci dugal ñëpp ak Jos Junior loxo baay Afrique war na ci am place loxo baay daanaan mu la kenn du moom mu ngi noonu ab délégation ma ngi noonu di dugg si ci biir stade daanaan bu mag bi daanaan bu mag baa international waaw waaye le temps muy ñëw kontaan di sant yàlla ak yant bi di sama ñaari waay di sant Alaaji Njaay xam nga ni baa bu toll nii Sénégal gépp gis naa fi ñoo xamante ni biig la ñu wàcc ci avion bi man bi ma leen laajee lu xew dañ ñu ma 1er janvier bi bisu Alaaji Njaay bi duñ ko tardé. duñu yaaral suñu papa la te moom lañu ñu tuddee bés bi il faut ñu ñëw pour dooleel suñu papa du Ndiaye Rose ñaareel ba tam El Hadj suma xarit la bon ñëpp xam nañu diggante El Hadj Ndiaye ak Thione Mariam Ndiaye ak Thione donc ensemble la bu ñu boole rek mu nekk euh, lu war a mën a ne mais surtout suñu papa du Ndiaye Rose moom du def dara te boole wuñu ci donc bu amee bés il faut ñu teewal ko même bu doon juróomi minutes sax ñu ñëw teew. tey gis nga tey bisu bànneex la kenn tiitul. ñëpp a ngi foo ñëpp ngi rey ñëpp a ngi fecc ngi bëre mais élection yii ñëw moo jar moo tax ñuy ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm ci senegal gi mais teewaay bi li ko waral bari na trop parce que préparer ce plan ñëw toog ci côté bi seetaan ko li ko waral aussi mooy làmb ci làmb laa bokk li ko waral aussi mooy 2STV yi moo xewle ak WWR Mmh. donc ñëw euh, teewe lamb tax wàccoo euh, euh, je pense que c'est le bon moment pour ma xamal ñi nga xamante ne soppe lañ ak dañu dund écurie Fass que man léegi sama place ci kaw tribune bi la léegi sama place nekkatul dans l'enceinte léegi sama place ci kaw tribune bi la liggéey bi war nag sama diggante ak l'écurie dama koy def mais sama place léegi nekkatul wàcc di ménager nekkatul wàcc di coacher léegi place bi léegi pour ñu xam ne ci kaw tribune bi la. ah Baba Ndiol laa faral. loo wax ci la. Gris mooy daan Gris. koo supporté. Gris Bordeaux laay supporté te mooy gagné. kuy daan ki daan. Gris Bordeaux mooy daan mooy duma mooy daan. Gris Bordeaux. waaw ah, mais kuy daan. non mais c'est facile c'est Gris mooy daan ah mais yow it Gris mooy daan. kuy daan. non lamb tey ji moom damay nëtt sama yoon newu ci. Gris Bordeaux mooy daan. yaa di kii kii va tomber c'est dit Gris Bordeaux. eh non je le sais pas désolé. Et eh, bonne année à tous les Sénégalais, j'adore le Sénégal, vive le Sénégal. Comment il s'appelle Ah detto di chi? Che Giri e Baymondion. Non ho capito bene la la. Sei tifoso di chi? Delle due lottatori. Ma io per me è, tutta una cosa nuova ancora, non saprei definire ancora il nome di quale atleta o lottatore sia, per me sono tutti meravigliosi, quando conoscerò la vostra cultura, i vostri campioni, tif tiferò per chi merita, ma il Senegal e mando un saluto all'Italia, che queste cose non le possono immaginare. nee na moom fi mu toll nii mënul wax ne kenn la waral waaye daal li mu mën a wax mooy lu mel ni mosu koo yaakaar mosu ko xalaat nee na dund na làmp lu ne mais tey ni mu ko dundee mosu koo dundee yaakaar na ne lu mel ni bu waree àdduna yëpp mën na koo gis Sénégal rek la am donc bis bu xamee turu mbër yi dina xam ki mu waral mais dégg na turu Baye Mandione dégg na turu Gris Bordeaux. bu dee saan ñu ngi noonu mag a rakk ñu noonu wala ndi jaay ak jarbaatam ñu ko jëng. ak mbay ak mbay Guèye Faye. ak mbay Guèye moo ne woon kuy jur gi yàbbal ñëw ah daan naan la. daan naan la xoola xale yi façon bu ne la ñuy def. wala keroog baaba ba ñu tegee keroog prix ba xale bi lu nar fecc mi. spécial touristique. xool ma. vidéo xool ma wax na ma mère bi xool. nga woo ma a jantal. kan ma gën a. ah xanaa sama. yow xool nga ma man. yow tamit dama am ku la a jantal. namu ma dal. ndax mooy bëccëg ma jigéen mboor ak aali ma jigéen mboor. yow nga woo. déedéet kii na. non man nag dama am jëkkër waaye yow moom waa RTS dama dama leen a bëgg. wettali si ak fay si bor El Hadj Doudou Rose ndax tey askanu ngéwél xam naa ku mënul de te yàlla dogalul sa ñëw waaye kenn ku ci ne ku ñëwul it sa xol ñëw na ndax du njaay kumba ros day kenn rek ci ñun. suñu bésu tey nag waxoon naa la ko ca tribune ba newoon naa la tey ngay gis loo mës a gis ci stade bi newoon naa la le stade va percuter maanaam dina yëngu ci ay percussion et bés bi nag ki ko waral moom mooy sunu baay muy El Hadj Ndiaye comme ni ko El Hadj Ndiouga waxee di sunu kilifa moom i tamit et bés bi ñu ko jox tey et bravo Ndiaye. ak 2STV waaye sa papa di El Hadj Bécaye Mbaye yàqu ci dara. ndax nit la koo xam ni ku yëngu ci culture la jël na ndënd lamb mbëng-mbëng cuul xiin yóbbu ko dans le monde yóbbu na ko ba Japon yóbbu ko ba Mexico ja ko dal xaaraa ca stade ba tëgg ko fa tëgg na ko Espagne tëgg na ko fu ne. ndax Malaw bi ma xaali ak Demba Sarr xaali ak Ngar xaali. ak Baba Sarr ma xaali ñooñu la ma xaali pend sira jur waaye bi mu juddoo ci askan wu rëy woowu yi nag dafa fexe ba màggal askan wi du bisu géwél rek géwél ak géer waalo ak ndakaaru la boole ndax Iba Ndiaye ko du yor baayam loolu laa ne ak suñuy bàyyi lim nay tëgg na Bercy tëgg na fu ne boulevard bu gën a rëy ci Paris Doudou Ndiaye tëgg na fa tëgg na ci la Marseillaise te ku nekk xam na tey premier janvier di bis bu njëkk ci at mi 2STV nag loo xam ne bokk na ci histoire Sénégal mooy télé bi nga xamante ne teg na premier janvier lamb tudde ko du Ndiaye Rose mi nga xam ne ambassadeur la ñun ñëpp kontaan nañu ci di ñaan yàlla yaan def jàmm bés bi daal dama ci sant yàlla mooy li ma waxoon keroog ci télévision ni bés bi dañ daan wax naan bés sàngam dina ala dawme moom mani mani dana ala dawme dana ala Mali ala Guinée ala Sénégalais dafa naan loolu prouvé na ko ku xool nit ñi xam ni tubaab fakal ah, ñëpp wuy nañu maa ngi sant yàlla bu baax ci li Alaaji Njaay def ndax ñëpp dañ ma yéene woon bés bi moom mu xalaat ko def ko kon mënu ma lu may sant ci kontaan ci. dama ñëw seetaan si c'est la première fois ma ñëw làmb bi mais cette fois ci dama ñëw parce que moo ñoo xewle quoi donc euh, bu 2S xewle il faut que élément 2S yëpp ñëw loolu moo fi andi. ndax teeloo ñëw def naa fi maa ngi fi maa ngi woon fi depuis sànq taxaw di seetaan dama ñëw ci ambiance bi. jaajëf ça se passe Bécaye gannaaw gannaaw ma sant yàlla. jullit day am ci lamb bi naa sant yàlla sant sant Cheikh Ndambe sant waa Sandaga Bécaye di sant waa Sandaga di gërëm waa Sandaga parce que aw ma fay ñoom ma Baye a ñu noonu toog ak El Hadj Ndiaye le directeur général Lamine Gaaga ngi nii moo jiite athlétisme ci àdduna si doomu Sénégal la te loolu na fi xel war naa dem ci Amadou Makhtar Mbow UNESCO Jack Diouf FAO ñu ngi noonu doomi mi noonu bàyyi bint noo sportif mbaa fu maye ngi noonu ndeysaan Mbaye ci wàllu sport Mbaye Thiam noonu ñu fop la nekkoon Moustapha Diop notre frère mi ngi noonu ñoom euh, Assa Aziz yaay ngi noonu moo nëba ñoom Samb Seynou ñoom Thiam Demba ndeysaan nee ci lamb ci yow lay ubbee ay ndeysaan tey jën ñu noonu. lay ndeysaan Mohamed Ndao tey jën. ndeysaan tamit élégant élégant élégant ne dafa doon dafa war a ñëw ci lamb yi nag. ndeysaan kamaa ngi noonu. Mansour Mansour ak maître duduk banyak para banyak Sampai usia budaya Mayai kumpang Sampai kau berdoa Jangan ambil Aisyah Modou Lo ñëw na Modou xarañ Lo yegg na léegi moom tamit ay ca Modou Lo i gonga lay aa bugoor kumaroon yaga la muñ aa ah, alaaji na njaaroon ñoom ñoo ngi ci digg géew bi ndeysaan Vieux Seck Vieux Seck tambour major bu mag bi ci Kaolack ñëw tey fekk si lii dëgg la dëgg la pour la paix euh, ndax jàmm rek lañ am waaw jàmm la yëpp xewee waaw bu xool jeunesse Sénégal bi xam ni jàmm rek la ñu ah billaay walaay père di nga kontaan yow di bëgg di nga xam ne yow affaire bi laa xam nga bu ku roy a tàkkee bi suy songar yaa gën a gaaw a songar yi ci xew bu ñu jeexal quoi laa gaaw a songar daa war taxaw xoolal man li ko Touba Dakar yi daw ba fu ne yaa ngi dégg mais mais yow da nga am benn cag cag wàcc ni yéendu rek songar loolu baaxul bàyyi ko waaw je pense que ni yow combat boobu rek peut-être bon période boobu fekk na média bi demeewul noonu demeewul woon nii ci làmba parce que à chaque fois damay dégg mu naan làmb joo daf ma duma daf ma yóbbu ardo ay ree la may def ah, waaw non wax ba pare non wuy ma du respect gis na wax ak moom gis na nit booy wax ak moom da nga ko jox respect da wax wuy ma da wax ma bàyyi ma di déglu da ngay bàyyi ma wax après nga wax a ah, mais wuy ma làmb joo ci gàttal bi dafa sifflé na ma na pare nga pare nga avant arbitre di teg loxo mu dóor ma arbitre jox ko avertissement. dëgg loolu dëgg. boo paree ma wax fekkee nga ko. arbitre dox suñu diggante gi ngir pare nga. njoon pare nga avant arbitre di sifflé yu fu tapet yooyu yu fu tapet la. waa demal mu dóor ma jéem pour bañ mu dal. àggalil arbitre jox ko avertissement mun a pardon. àggalil ñu bëree dem ci ginnaaw saako yi. ma dóor ko benn crochet boo xam ne. waaw barke dafa jaaxaat wuyu ma. barki alxuraan billaahi wallaahi wa tallaahi barki muhammad barki alxuraan wala moo waral corosé bi lan moo waral déglu ma rek déglu ma dañ dem ginnaaw saaga yi man xamuma man ay ginnaaw ko rek la wax li moom dara fi dëgg amaan fii la xale jaar barki rasulaay maa ko duma te xoolal xoolal dama ko duma jàpp ko nii arbitre bi arbitre bi dafa yëndu ci suuf gis dara ji toog si moom moom giri ar bi àttee barki sëy naa limaam kii mënuma bàyyi làmb da ngay dara yow nga naan fan da bi nga teg eh, bi may doon bi may doon tamit attawul yaa dem rek xaan sàmb abba ko kaset ma la ko da ngay ji fii ñi fi yëpp ñi fi am ñu bëri ñu seeraan làmb jooju barke Muhammad barke Muhammad lay dama la duma xam na man mbër bu musu dóor rek fayu naa man moo man dama la la boo ma dóoree bi ba ma nekkee tout tànk boo ma magee ëpp ma doole sax boo ma dóoree billaay àppal naa la ko at foo mënti nekk danaa bi danaa la dóor xer ci bopp soo ma ëppee doole waxtu laa ci làmb ji at dafa ma dóor waaw arbitre atte waaw jox ko avertissement ñu bëri dem waxal dëgg waay waxal li mu demee rek ma dóor ko crochet boo xam ne mu jaaxaan crochet la moo tax arbitre ko woo mu naan gisu ma comme gisuma di jooyee di wax di bu ñàkk fay la yoo xam ne appel la di jooy rek a garaaw li a garaaw ay mais mais mais mais mais mais mais loolu du wax amateur ñu ci làmb ji entraîneur yooyu yëpp loolu du wax gars yi dañ seen xaalis combat dafa war a yegg ah loolu du wax mbokk yi Sitor Touré sifflé na 19h11 minutes Gris Bordeaux Baye Mandione ngi fii ci stade Demba Diop tey jii mbokk yi di benn fan ci weeru janvier atum 2012 WWR ak Luc Nicolaï Co tëgg drapeau Alaaji Dudu Njaay Kuma Rose Baye Mandione Gris Bordeaux ñi ngi léewtoo minute h 16 minutes bëreegum nañu 5 minutes Baye Mandione dóor na dal na ci loxo loxoy Gris Gris ngi battre fu mu nekk Baye Mandione a ngi résister waaw gis nga Gris dóor na Gris touché na ko dafa bëgg Baye Mandione déclenché mais na Gris dóor na ña ngay dóorante ña ngay dóorante Baye Baye Mandione Gris oh, daan na ko daan na mu daan fa la mu daan daan naa la ko noonu naa la bëri day am kaw. bëri bi moom moo am kaw. fa la ko bàyyi mu daanu. laaj nga ma ko mën la day am kaw. fa la ko bàyyi mu daanu. bëri boo demee moom dara ko rek nga jox ko. fa la ko bàyyi mu daanu. kon ñu si gis ne. waaw lan la koy def bis. waa xeex ba. dafa am ambulance. xeex ba xeex ba. entraîné ambulance. xeex naa ci baax. ambulance ba am ambulance ba entraîné. waxoo ma dëgg. ndeysaan Babacar Gris Bordeaux Mbaye Gueye ci plateau bi di daw na yaram action bi dafa riis oho action bi dafa riis oho ndeysaan Doudou Seck Mbaye waaw yaakaar naa am na différence parce que combat boobu euh, yàlla dëgg rek la bëgg. combat boobu li ci xew yëpp. waaw c' était pas mu woon perte. Ah. boo gisoon combat bi yàgg na ëpp ay problème ëpp ay damay jël rek ci exemple le cas de Elton ak Tapha Tine. waaw c' est boo xam dañ ko arrêté par décision de l' te blessure yi am foofu ak suma combat ak adversaire moo doon bëral. Mm. blessure yi am sama adversaire amul moo gënoon grave. moo gënoon a grave moo gënoon grave. peut être si si combat boobu lañ jël ay leçons. Mm. pour tirer xam ni. ñaari adversaire bu ñu bëre. Ah. ba ba ba direct am rek. Ah. y' a danger. y' a danger. y' a danger mais loolu du ci revenir rek. waaw damay combat bi ma jógee rek. waaw dama ci sant yàlla. waaw parce que sant yàlla bi ma si sant yàlla. waaw moo ñi may yéene woon dam dafa bari. ah parce que man lamb ji euh, bégaay. waaw dama ci am parce que tag c'est c'est dangereux nag fin de carrière yeneen coups yi ngay jël fin de carrière te amuloo gynécologue amoo benn docteur bu lay pousse bu lay suivre et tout ah, waaw mais c'est vrai ah, médecin waaw médecin parce que moom mi président suñu grand bi seen dernier combat dóor na ko dóor yi nga xamante ni mardi taali mun naa ne grand bi sax combat bu mu si jógee après toog na trois mois yi nga xamante dafa feebar Zarko 2 sang Zarko de sang ñi ngi xeex waaw waaw waa sang yow sa kanam gi nga bàyyi noonu rek dinañ la dóor nga daanu Zarko de bañkat la bañkat la bañkat la daanu na daanu na daa risqué ba daan daa risqué ba daan ndeysaan la fa yëkkati na ko ba kaw dóor daan na ko waa London Boy Bawal sànniwaat na attention Temax daw na jël na Boy Bawal ñoom ñaar Temax Boy Bawal mboot mboot mboot mboot lay la lay la la eh waay Gaw Samba Boy Bawal numéro 2 mbot na Temax mbot moo xam ne di ànd ak moom di ànd ak moom di ànd ak moom ba mbot ko Moussa Ndoye Tonnerre ñoom ñaar ñi ngi jàppante ñi ngi bëre ci suuf Tonnerre bëgg daw na placal Moussa Ndoye bot ko ko bot na ko bot bu rëy Bruno daan na Tonnerre jël bu rëy la ilaha illallah allo sant ñoom ñaar bu kenn jàppee ba mu dëgër làmb ji du jeex attention nongoloo bébé bismi bébé mi mel na nu lu ko wër moog nongoloo ñoom ñaar ci suuf attention la ilaha illallah xale yi danoo mën a bëri ay ndaanaan lañ nee la eh kii bëtt laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Ndongo Lo bëtt na ko daan ko wulli laa ilaaha illallah